maa ngi leen bëgg a waxal tey juróom yi nga xam ne ñooy musibaay àddina musiba gën a leen a musiba ak juróom yi nga xam ne mooy musibaay àllaaxira ak juróom yi nga xam ne dafay guddal fani doomi aadama mu ne ko xamsatun min masaa'ibi dunya juróom yi musibaay àddina la mu ne bi ci njëkk mooy mawtul xabib deewu soppe soppe bu dee wiitaa nga ñëw na deel ma dee amul waaye deel sama àddina naqadi am na de da nga nekk ci mbooloo ñëpp sawar yow mënoo sawar da ngaa wéet yaa ngi ci biir mbooloo waaye da ngaa wéet da nga ca amul soppe mootul Habib xarit bu dee sa sécurité jeex na duñ la fexeel mukk fekk sa soppe ngi toog fuñ la fexeel rek sa soppe nekku foo échegee sa soppe nekku ko foo tëlee sa soppe nekku ko mootul Habib mu ne ko deewu soppe ci musibaay àddina la bokk te man sama mbokk yëpp dee nañ ana moo fi des yow yaa fi des tey ji ak sama jigéen ak xale tuuti mu musiba nga ñaareel bi mooy zahabul mali. nga yore alal di fomp rongo yore alal di dagg buumi gàcce yi yore alal di dimbale miskin yeeg baadooloy jékki-jékki nga ne welas nekk miskin ngay gis loo nga def te mënoo ci dara lii balaa la danaa doon dégg way jur bi yal na yàlla ko mu doon naan saabunu diin nee na alal mooy saabu jàkka bi dafa cang yeggul yeggale ko alal moo koy def miskina ngi ne yore ordonnance nga jënd ko léegi am yàlla am na ku ku ñu bëgg a noote léegi tëj ko nga génne sa alal léegi mu fanaane këram alal rek mooy def li kon am alal ñàkk ko musiba ci musiba yu àddina muy ñaar ñetteel bi chamaatatul aada mooy ndokku nooni mu ne na nga fexe loo am jox ko say noon ngir bu ñu la ndokk bu ñu la mos a ndokk moom noon du firi ngembam daf koy oyofal saa su la jekko rek mu jóga te fu mu nekk mii ngi la bëgg a ne ndokk yal na yàlla musal ci noonu yaa rabbi ñetti ñeenteel bi mooy tuulu stil mi yàgg ci biir jàmm boo yàgg ci biir jàmm rek da mujj a fuuy te boo fuuyee rek nga génn ci yoonu yàlla moo tax yàlla ne wala basatallahu rizqa li ibaadi la baxaw bu ma joxoon jaam yi lu ne gàññ eh, dana am ñu fuuy te bu nit fuuy rek yàqule waaye boo yàggee amoo benn musiba rek da nga bew da nga fuuy moo tax jullit te yàlla wérloo ko bañ naa ah tey de boo ko gisee moom macha allah bés dikk mu daal la natt ba ku la gis naan ndeysaan lu ko jot ngir nga bañ a fuuy nga mën a dellu ci yàlla yenn jamono booy jóg nga ne bërët yenn jamono booy jóg ngay sukkandiku ngir nga mën a delluwaat ci yàlla ngir naqar jafeñ feebar lu gaaw a delloo nit la ci yàlla juróomeel bi mooy lan mooy almaratu ashirira jabar bu bon jabar bu bon bu la ko yàlla joxe boo yéegoon da wàcc boo rawoon da nga jël ndàdde buñ la wegoon danañ la wegadi ku la nawloo woon du la mujj a nawlu jabar bu bon moo tax Seydina Muhammad ne addunia kulluha mataaun wa xayru mataayiha imraatun saaliha àddina daal ay ndab la gën ci ndab yi mooy jabar bu baax boo fi nekkee mu euh, mu nekk ak yow bànneexal la boo jàqee mu dalal la boo jaaxle mu defal la boo demee mu sàmm la ci boppam sàmm la ci àlla la juróom yi mooy musibay àddina yàlla nañ ci yàlla musal juróom yi nga xam ne ñooy musibay àllaaxira bi ci njëkk mooy fawtu salaati ma al imam min gayri us di faat julli bañ a ànd ak éliman ah kon musiba ngoog de faat julli and ak baña and ak élimaan amo ben ngant ngant da nay am ndax Imam malik def na ñaar fukki ak juroom julli wu ci mbolo ku tol ni imam malik bu defé lolu rek mbir la dawul ni secret yëpp ni dana ko mëna ndax am na ño xam jotali lu leen neex la dégg nga li ma dégg te duñ tasaare lu baax ma faat julli baña and ak baña julli ci jàkka ja ak élimaan te amo ben ngant musiba allah ci la bokk man u tere asaka mooy musée bii ñuy dund tey réewu jullit saa su bañ a joxe azaka ni mu yelle yàlla téye ndoxam wala bu tawee mu dindi barkey mbeytee fi naka naka mu anakal mooy génne asaka yi mbey ni mu yelle jaay gerte génne asaka ba bay génne asaka ba déedéet kon benn musiba mu ngi noonu te àllaaxira fooy wàccee biir bàmmeel yàlla daal def sa alal boobu yëpp muy faire à passer ñu duggal ko ci safara ba mu xonko ci ñu la koy ñaas yawma yuhma yux ma ga moy mawtul alim deew borom xam-xam borom xam-xam lampe la bu deer lampe ba fayna kuy dox ci lëndëm te amo lamp ci insécurité ñentel ba raddu sa'il Yalwan ka taxaw ci buntu bi ne ya rabbal anam nga ko demal sa yegg na wala nga ne xale yi seet bi tejuñ ko won bu leen ko lekk de du jomb unku saw na ca waaye jox ko taalibe bi taalib bi kon amul ndey ak baay juróomeel ba mooy jafawul waaliday ni nga beccangal sa ndey ak sa baay ngay naqaral sa ndey di naqaral sa baay doo dégg eskay mukk cambay rek ngay dégg ñun ñi rawante wuñu alal ci barke lañu rawante juróom yi guddal fan mu ne ko waaw mu ne ko bi ci njëkk mooy silati rahim jokk mbokk kuy jokk mbokk yàlla dafay guddal fanam rek boo amee ndékki séddoo ak ñoom boo amee añ séddoo kook ñoom boo amee reer séddoo kook ñoom boo amee ay malaan ko ak ñoom bu ñu xewlee nga dem bu ñu ñëwee nga may leen ah yàlla mën naa fekk sa fan de boo guddul fan it yàlla barkeel sa fan li nit doon liggéey ci téeméeri yàlla may la nga liggéey ko ci fukki at fan dana gudd fan dana barke fan bu barke moo gën fan bu gudd bu fan guddoo te barkewul kese la neen la bàkkaat a kon jokk mbokk dafay guddal fan mu ne ko ak lan mu ne ko sadaqatu sirri nga joxe sarax ci secret ba sa càmmooñ xamul sa ndeyjoor lan la joxe mu ne ko ak lan baay mu ne ko birrul waalidayni nga baaxe sa ñaari wayjur wa kaanaa in kaana muslimayni sawaun kaana muslimayni aw kaafirayni nga teral sa ndeeg sa baay doonte ay yéeféer lañu ngay jullit bu ñuy jullit buñ dul jullidoo sa yoon képp ko xam da ngay lekk lu neex bàyyi sa ndeeg sa baay xetu aljana doo ko bandamtiku mukk yal nañ ci yàlla musal aljannatu taxta ummahat hmm? ñeenteel bi mooy salaatul leyl julli guddi ñëpp tëdd di xaram nga jóg dugg ci ndox mu sedd bi jàkkaarloo penku yàlla bi ne allahu akbar yaay ki mag da fi yàgg te muhammad nee na rakaatun fi leyli xayrun min addunia wa ma fiha benn rakka ci guddi xaaju guddi moo gën àdduna ak ci biir bi mujj mooy lan mu ne ko di ñaan yàlla ngay ñaan yàlla bañ a sikk sàkka ñaan yàlla bañ a dengi-dengi ñaan yàlla bañ a ànd ak xel ñaar boo toogee ci bunt yàlla di sikk sàkka jógal dem yàlla du génn may la ma da ngay am volonté ne ñaan naa yàlla nangu na udullaha wa antum muqinina bil ijaaba na na ngeen ñaan yàlla te wóolu ne yàlla nangu na ko waaye ngay dengi-dengi yàlla na ko nangu du ko nangu jógal dem sa aaju du faju